neexee tas kenn Bouras salaamaaleykum Sénégal. Mhm. salaamaaleykum adduna. ndeysaan ah, nuyoo nañ leen ca nañ leen daan nuyoo. ndeysaan teewat nañ fii tëj seen émission. ras gis <laughs> ànd ceeg ñan diis. <laughs> émission di uh-huh. bu baax a baax di nuyu adduna. Uh-huh. di nuyu ñëpp. Uh-huh. monde. ndeysaan asalaamaaleykum adduna. salaamaaleykum moo ngi entier. Hmm? sala monde entier salaamaaleykum. mbokki whatsapp salaamaaleykum mbokki facebook mbokki réseau réseau sociaux yëpp ñu ngi leen di bëgg di leen siyaar xam naa leen na moon ngeen ñun tamit ñoo leen raw dëgg la ñëwaat nañu chaîne beneen numéro émission bii ñu naan ras gis ci chaîne bi bii xam ne ñu naan ko waaye gis di leen gërëm di leen sat di leen siyaare <laughs> am di waaw balaa ñoo démarré tamit loo ciy wax ñu gërëm ñi ñu jàppale ñoo ñan mel ne na bu xaas day sant kooku kooku kooku <laughs> mooy fël fii chaque jour. bi. Ah, <laughs> neex na de ah kii Nabou Xaas moo koy jaay. Nabou Xaas Nabou mu nga nekk ca ginnaaw a ndeysaan koñ bi ñu naan double virage soo génnee rek. à face boo laajtee neex soow bamba bi rek. ak kër ñoo jàkkaarloo. voilà kii baa ngi fa day jaay nag ay cuuraay yu neex. sedd bi waaw waaw waaw day jaay cuuraay yu baax. dëgër parfois sàmm dëgër. waaw waaw Nabou Xaas da koy jaay. di leen nuyu ñaa passage nag di leen gërëm di leen sant. am di fan lañ jëm tey. ah tey nag boo bëggee xam fuñ jëm. ah xam nga temps yi dafa sedd lool. guy guy guy guy. te sedd nag buñ ko dee wax. Mm-hmm. am na ñoo xam duñ sangu. waaw waaw duñ sangu. waaw. kalaasu Omar Touré gi duñ sangu. waaw Omar Touré. waaw waaw. Omar Touré du sangu. limal limal waaw. Omar Touré du sangu. ak rakam ja Fallou Touré. waaw waaw du sangu. waaw yaa ngi dégg. Mm-hmm. Awa Fall du sangu. aw men du sangu du sangu <laughs> ab sa faal ab sa du sangu du sangu ba da cee wàll seen doom ju ndaw ja seexu seexu seexu du sangu du sangu du sangu bëri na bëri na man instant eh, bi ñu ngi may jooytu lu lay jooytu ramatulaay jeng ramatulaay jeng du sangu oh. yaa ngi dégg waaw ngoone maar am na benn xaritam ngoone maar waaw du sangu du sangu ah sali maar du sangu ay waay waay waay li ñaaw na kumba mar du sangu moor yaasin top moor yaasin siise du sangu du sangu ak mag ak mag ja Lamine Lamine Cissé du laal ndox maa ko wax Lamine Cissé Pape Cissé du laal ndox Adama Cissé du laal ndox aada day sangu aada du sangu aada day sangu yow aada du maa ko gis aada du sangu aada sangu xam nga day sangu bu la waxee loolu du sangu day sangu day ñëw raay nii nii noonu sangu ñee duñ sangu duñ waa uyu ma rakk ji seen rakk ji ah. mu ngeeg benn solution boo xam ne moom xam naa ne moom ku ñàkk sangu ba dem ci moom moom moom bu la joxee conseil moo wàcc nga ban la

gëj nga sangu maa ngi jàngu daal maa ngi jàngu waaye gëj naa laal ndox daal renduma compte fan laa xool fàttali ko sangu daal non fàtte naa ko daal fàtte naa ko gëj naa sangu de kon gëj naa sangu sedd bi nag ba mu commencé loolu fi jar mooy sedd bi ban sedd bi fi ne daa loo xam ne nag ñii dañ ko war a waxtaane di yàlla tegul kenn lu mu mënut yàlla tegul ana ba sio def root te robinet ba yóbbu jël waaw yow waaw yow déggoo la wax ngay sangu nag pour seet nag dem kiris dem kiris ci biir nag xam nga loolu erreur la man tey moom ñàkk ñii ñàkk sangu laay faral de ah, ndax koñ ba bëri na ñoo xam ne maam Malick moom kenn du moom Mame Malick day sangu mu cinq ans mool la instant bii mu ngi ci naata cinq jours yoo xam ne Mame Malick laalu ndox jabar ji daf maa woo keroog wax na bay bëgg a dee dégg naa keroog ñett téeñ fekk nañ ko ci kaw laal bi muy màtt doom ji kon maam Malick maam Malick jëmal a sangu maam Malick del sangu del sangu ma ci woon wax waaye li sa waay wax tax ma wax waaye ah? nag maam Malick moom moo ko wax waxuma ko waaw waaye del sangu maa ko koñ ba bëri na ñu dul sangu bëri na ñu dul sangu ñoo xam ne duñu laal ndox surtout maam mool yi nag laxaat xam nga ko laxaat xam naa laxaat du laal ndox du sangu waaye léegi tax mu ñuul du sangu laxaat xoola yaram bi ni mel ndeysaan keroog keroog xoola darab bu weex laa ko fekk mu ma mais nit oh! Prince Prince nit la marqué nit manam mo moo fa tudon mais bu mu jógee dafa marqué nit. sa tek mu da nga yaakar waxa ñu ñun xamul ñu di wax xeeñ nañ. la xat nay sangu nak du sangu tam xol la del sangu lo ci xamul nak nag. laxaat del sangu marié la amna jabar. amna jabar marié la. du xoolal lool rek. ah laxaat yow tamit nag del sangu. nogoy job moy boy moy borom ki bi borom kess wari bi nek fe du eh, la ndox koku day sangu nak kooku ko job du sangu. xanaa waaye tee bi. bon xanaa xam nga xale yu jigéen ñu ngi ak seen système yo xamne buñu buñ nga yaakaar ne sangu nañ eh koku day sangu way mooy wax duñu laal ndox ah kon na koy jóob na koy jóob dee sangu dal sangu ah ndeysaan yaayam ji yaayam keroog day wax bay joy mère bu ja ñu koy nuyu en passage moy mère borom beñe yu baax yi ah. mère ak mën a jaay beñe beñe mère bu ja ah <laughs> beñe fukki benn juróomi ah. bu la ko joxee xajul sax gim kanam gi ma dang koy forcer lay <laughs> dañ koy pousse plastis waaye tamit nag am nga koo faate nag kan la Thierno Mbengue wóor na yàlla xool dama ko fàtte woon xaw ma cere wóor na moom xum xar xar la may tombé moo tax ñu buur ko dara daa <laughs> def dara gars yi jax xar yi xar yi jaawale ko di ko di ko mbee di ko mbee xool keroog moom xool keroog moom may jotee ak moom biir daral ba rek keroog noonu la noonu la bëri ay supporter xar xar yi bu jug bi ma ne koo pàcc xar yi dañoo jóg baa ah, ah. ma laal ndox cere na leen jéem a laal ndox leen jéem a laal am naa benn copain boo xam ne am naa benn copain bàyyi saam koy saab. <laughs> état bi de mu ngi eh, saab day sangu nag. waaw yow yow yow man ñu ne sangu maa leen xam xam nga du ma sangu man moo tax ma xam leen. waaye Sam day sangu waaye waaye du laal ndox. daaw da jaay daaw da yee daaw da jaay goro la waaye du laal ndox. daaw da jaay jéem a la sangu nag. kumbis tamit du laal ndox. kumbis mu waay ji bi kumbis mu waay ji bi du sangu. du laal ndox. Eh, yow tamit nag li nga def yow boobu léegi nag yaa ngi wax ma naan nii nii moom moom sangu ma moom moom maa mooma leer rek sung bi du sangu léegi kan mooy sangu kon léegi yow waaye kii sangu daal ci koñ na ma xool Pape Diouf day sangu Pape Diouf waaw Pape Diouf ñoo ko weng si moom day laal ndox la moom ku bëgg ndox la bay ah, saat comme day sangu wala wala damaa fàtte damaa juum damaa juum mooy patron nimal kat yi Pape Diouf moo kon yow kan mooy sangu. Moodu laa bëggoon wax Moodu Pelé. Moodu Pelé waaw kooku day sangu. waaw Moodu Pelé day sangu moom. boole ci nag na bàyyi tibi nag tibi ngay diwoo. tibi Moodu Pelé yaa ngi sangu waaye leer gi ngay bàyyi. waaw kelerman bi. ngay bàyyi. Moodu Pelé waaw Moodu Pelé. day sangu nga gépp baax ndeysaan. Mhm. waaw Moodu nag il faut ñu dóor la parce que moom faaw ñu ñëw fa. faaw ñu ñëw fa faaw ñu ñëw sa kër. waaw waaw waaye ndeysaan nag mun fàtte suñu waaja. kan la ci <laughs> ay nit ku yàlla baaxal. kookooy sangu nag ay waay vraiment kuy sangu kuy àgg si bas kuy sangu ba àgg si ci jubbu. ah fa ngay day sangu di sangu ba buntu këram da utal da ko utal ki tineel tineel tineel ndox mi dafa jaar di jàll. laa ilaha illallah kookoo bëgg ndox. day sangu ay waay waay cubb yow kii yàlla baaxal. tim nit ku baax. li koo xam ne rek lu ah! ndeysaan xamul tax ma bëgg ko cubu moom daa bëgg waa koñ ba yow daa nga mënoon noonu cubu maamam nii la tuddoon de waxoon nga ma ko de waaw maamam kii na ne kii cubu nan cubu mbaaxaan mbaaxaan xar baax cubu <laughs> maamam noonu tudd xar baax cubu ndeysaan nit ku baax muur la dëkk muur yéen ñi ñuy seetaan ngeen di ko seet si cubu ku baax a ngoog ah ay waay waay ak mën a joxe xaalis ay waay waay waay waay waay waay dañ faa war a dem dugg nag ñun ci koñ bi lañ dëkk war nañ faa dem war nañ faa dem war nañ faa dem changé suñu yii changé suñu yii xoolal yii xam ngeen yii dëgg-dëgg affaire yaa ngi dox nabu ñëw na fii waaye sponsor yi da ngeen a a ñëw nag yéen bamba neex soo da ngaa a ñëw des fois nga ñuy tegal plateau bi fii ñuy teg ay show ak yooyu noonu ah jubb dimbali ñu nag xoolal suñu yëre yi bëgg nañ bu ñuy ñëwaat émission nag nga changel ñu ko. defal ñu ko ay jees neen ay yu baax. baax baax pourtant nag ko la jabar ji noonu la baaxee ndey caam. ay am na bu caam baabel dem ba caam bu rëb di waas waas waas. bu baaxoon nga ay waay ma ñëw bu ma mooy soxla ci bu. ak a baax. waaye nag mu ngi yor ay golo yoo xam duñ sangu moom it. waaw waaw waaw ndey penda surtout maa ndey penda. ndey penda du sangu penda du sangu am na beneen booy boo xam ne ñu naan ko kii waaw ñu ngi koy waxatee sax man booy dama leen di fàtte fëri pare lawbe du sangu sangu man lawbe yi da ngeen bëggoon ndox may léegi li seen fàtte woon ah lawbe yi am naa ci ben bu dëkk fee xadi jum du sangu du sangu a ah, ah dee leen sangu ndeysaan ñoom day pend dañuy sangu a ah? yow daal ah ginnaaw demee noonu noonu waaw tey ci sangu bi leen doon wax waaw ci sangu bi sedd bi métti na lool waaye teewul ngeen di sangu waaw na sama gars yi di sangu bu baax yow nag cubu dinañ la dinañ fa ñëw nag cubb ndax bëgg nañ nga sansel ñu sunu yii defal na ko ay jeex waaw waaw waaw borom baax na ndax man li ma gën a neex ci moom barki démb suñu yaay yi jàngi ñu war a def waaw yow ñeenti nag la fa cubb yeew ñaar ñeent doo wàññi nag ah wàññi nag non benn la présenté benn la génne présenté ko mais ñeent la mu nga daral mu nga daral waaw ñeent la xam nga koñ ba daa bëri ay jàng am na ñeent jàng yu fa am am na ñeent nag yëpp cubb lañ ko patronné cubb lañ ko patronné moom la ko patronné mu ñëw nit ku baax ñu ngi leen di gërëm di leen sant. taalibe Serigne Touba Salab ah waaw laal laal ci. sant bu baax na bu xaas ñu ngi lay bëggee. Ah, waaw jaar fii. amet neex soow bamba ñëpp ñu ngi leen di siyaar. Modou Ba del sangu. ndax il moo sa béjaaw yooyu ko xool xam ne béjaaw ñàkk sangu la nekkul na da ngaa màggee noonu ndax mbaw la mag te amul kii béjaaw waaw ah, waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ne nag lii moo newoon seen émission waaye Dix di leen jox dig daje waaw waaw ba beneen ba beneen numéro rek waaw waaw waaw cubbu yang xam nak nag ñu ngi ñëw ci le revenir quoi avec cubbu ñu ngi leen gërëm di leen wa rahmatullah taala wa barakat la tasket Raskis bu ko tasket Raskis bu la